bismillahi irrahmani irrahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw nuyoo bi ak cant gi ak siyaar seen mbokkum taalibe di dongo di wuyoo ci turu Mbay mooy àddoo fii ci Milan ci daara jii di ahlullahi ahlul waa kër sëriñ Mor Mbay Siise alquran kitabullah tey dañoo am yéene yi yaatal liggéey ba ñu daan def nag a jekk te mooy daan defar ay kaamil di ko yóbbu Sénégal di ko jox dongo yi ñu koy jànge jublu wuñ ca dara nag lu dul sàkk ngërëmul yàlla tey nag dañoo am yéene yi yaatal ko ndax ñëpp mën cee jot moo xam fii ci Europe la wala Afrique wala Amérique wala fu doon fu fiy jullit nekk ci kaw suuf si rek noo ngi leen koy jottali tey ñaan képp koo xam ne nii yaa ngi ciy barkeelu nanga laytaay yéene joo xam ni da nga yéene waale mbooleem say yooy faatu ba ci mbooleem ñi ci biir suuf si da di jullit ngir ñooña ñu mat di fàttaliku lañ ci liggéey yu mel nii ndax ñoom deseetuñ dara lu dul ñun ñun bàyyi ginnaaw te ñun itam deseeluñ leen dara lu dul ak ñaan te ak ñaan lu ci gën a gaaw alxuraan amut ndax mbooleem ñooñ ñëpp alxuraan rek lañ leen di lañ leen di ñaanale kon nag may may yaatal yéene ngir bëgg ñun ñëpp ñu bokk ko def du yalwaan du sàkku ndimbal waaye kaay leen ñu sàkku ngërëmul yàlla la kaay leen nu bokk texe kon lu ci waay def na la wóor ni danga nga fekk yobbi ci sa bàmmeel ginnaaw julli kaamile nag képp ku ci yéene walla sa yooyu te yaatal ko ba mu yaatu na la wóor ni ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk dana jot yoolu junniy kaamil te li fi li feeg donga yaa ngi koy jàng araf wuñ ci jàng yàlla dana ko nangu dana ko ful te dana leen fekk fa ñu nekk muy yool boo xam ni kenn xamatul fu mu yem te yow it lu mu ci mën di yow miy dund di ko defit ne la wóor ni da ni lépp da ko fekk ci sa bàmmeel yàlla nañ fi yàgg lool te yeex caa dem barke sëñ Tuubaa kon nag noo ngi ñaan ñun ñëpp ñu bokk ko def eh, ku mu mën a doon rek fu fu waay mën a nekk rek nañ yaatal yéene baax te fu fa eh, groupe bu fi waaye bokk itam noo ñaan nga jot leen ko ba ñëpp mën cee maase jot ñi bokk ko def ngir sàkkoo ko ngërëmul yàlla akuk texe ci barke rasulullah sallallahu taala wa sallam noo ngi noo ngi wax ni numéro euh, postepay bi mi ngi noonu numéro Sénégal bi nga xam ne am na Orange ne am na Wave moom itam mi ngi noonu kon nag noo ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm tey ñaan yàlla dimbali ba ñun ñëpp ñu maase def loolu ngir jëmmi rasulullah salaatu wasalaam bakke borom Tuubaa noo ngi leen di sant di leen gërëm salawatullahi wa rahmatuhu wa barakatuhu aleykum jamihan fi amanillah